alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala sayyidil mursaliin wattaabiciin laa xawla wala quwwata illaa billahil aliyyil aziim xasbunallaahu wa nixmal wakiil assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nuyu jullit di nuyoob lislaam waaye ñu ngi leen di siyaara tey ñaan yàlla sunu boroom subhaanahu tabaraka wa taala mu defal ñu yërmandeem ak jéggalam ñu dellu siwaat rek nag ci sunu jotaay ak yóbbulum ndaw ñi muy jotaayu xam-xam di jotaayu fàttali ñu doon jàngale nag téere bii ñuy wax jawharun nafis muy téere bu am solo bu jara bàyyi xel bu ñu bàyyee xel nag suñu bunt bii ñu mujjee jàngale ñi ngi doon jàngale ci bunt bi di wax ne suñ boroom dafa dénk doomu aadama bi juróom-ñaari cër juróom-ñaari cër yooyu nag mu digal ko mu topp ko ci waaye nag mu tere ko mu may ko ci sëriñ bi doon wax ne juróom-ñaari cër yooyu cër bu nekk dafa jàkkaarloog buntu sawara nit ki nag mooy fexe ba cëram boobee du ci mooy yàlla bu ca moyut yàlla rek cëram boobee àjjana la jëm kon nag ñu ngi si tey nag di tàmbalee ci sëriñ bi di wax ne wa an yuhibba ak muy bëgg lil ilaahi ngir yàlla sax seen jëm zil anaam kay boroom mbindéef mi wa yubxida ak muy bañ lahu ñeel ko laalil xotaam déet muy poñatum àdduna wa ahbibi ak muy bëgg almuumina jullit ba lil imaani ngir gëmam ga wal tubxidi ak muy bañ alkaafiru yéefar ba lil kufraani ngir wedd gi walaw ataa doonte dikk na la ilayka ci yow bil janaax ci tooñaange zaaga boobee jullit waza ak bii yéefar mu dikke la bil maali ci alal zil kifaaya kay boroomu doylu kon daal sëriñ bi mi ngi wax ne mu kallaf mu nekk di ab jullit war naa fexe ba tàmmal boppam lépp lu muy bëgg mu bëgg ko te yàlla rek tax waaye lu muy bañit mu bañ ko te yàlla rek tax loolu mu kallaf mu nekk di ab jullit war na koo jiima tàmmal boppam waaye sëriñ bi wax ne del bëgg jullit bi ngir gëm gim gëm yàlla donte jullit bi sax dafay ñëw ci yow di tooñ ne yow bëgg ko rek ngir lan bëgg gim bëgg yàlla ndax sëriñ bii daan na jàngale ci yeneen téeréem di wax ne képp koo leen dégg muy wax baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah kooku bu leen ko noonu kon loolu mooy bëgg te yàlla tax ngir gëm gim gëm yàlla waaye koo leen gis mu weddi yàlla na ngeen ko bañ ngir weddi gam weddi yàlla donte nag dafa dikkee ci yéen di leen indil alal ak xeet yu mel noonu ngir mbirum àdduna déedéet yéen na ngeen ko bañ ngir moom gëm gim ñàkk gëm yàlla mu ne wax wa an yakuuna ak muy nekk aamilan digle bi rusdi ci ak njub wa naahiyan ak muy tere an diddin walif safaan wa li nusaxaatin ngir laabire lakinnahu waaye nag lahu ñal na ko moom digle ak tere salaasatu suruuti ñetti sar sakaraha tudd na ko fi sarxi ci leeral ba mooy saraaba sayxunaa suñ sëriñ almuhit kay aji dégg diine xanaytu li ma ci jublu nag fil jawaar ci dagan nga wal wujuba ak warga fa nga jàppal xadadaha xaddaha seenub lim xala tatti bi ci toftale ay limu lim nag añ yàkkuuna mooy mu nekk xaaliman di aji xam bi munkari ci luñ tere wala yi sa mof diyante déet muy xëcc li sarri ñer aw ay ak baraw gën a mag mu nekkat nit ki di ab jullit di mu kalaf war na di digle lu baax tey tere lu bon waaw nit ki daal bu dee kilifa war na di digle lu baax ak di tere lu bon digle lu baax nag ak tere lu bon dafa am ñetti sart yoo xam ni dafa war a dajee ci nit ki nit ki door di ko man ci saraa ba ko suñ sëriñ bu mag ba ba nga xam ni mooy aji dégg diine ñetti sart la ñetti sart yooyu nag mooy ban mooy nit ki war naa xàmme lu baax lislaam li lislaam bëgg xàmme lu bon la lislaam bañ kon nit ki war naa xàmmee lu baax ak lu bon ba pare doo digle ak di tere te war naa xàmme it ginnaaw bu mu xàmmee lu baax ak lu bon ba pare buy digle na xam la muy digle bu dee bu ko diglee lii mu nekk jàmm kon baax na waaye bu dee su ko diglee mu indi aw ay wala ay wam nekkan bu ko diglee bu ko bu ca waxee ay wa gën a kawe maanaam ay wa far ëpp ay loxo kon boobaa war naa xàmmee ne kon loolu waru cee wax dara da war a bàyyi noonu ba war naa nekk tamit bu dee yàlla daf koo dimbali mu nekk koo xam te nii bu teree ñu bàyyi bu diglee ñu def mu ne kooku tamit war na di digle ak di tere mu ne bokk na ci sàrt ya mi ngi ñëw moo tax mu wax ne wa an yakuna ak muy nekk xaadiran di aji àttan zul amri kay borom ndigal xaalal isaalati ci dañal ci dañal ga bi xayri nukk liñ ci dul weddi wasaratu sart nañ bokk la ci sart ya isna imaamin ndigalul imaam fii ci moom maal xadaalati ànd ak maanu bilaa tamwiihi ci lu du déng déng waxee la wax nañ ne inna zayni nekk ñaar yi lam yakunaa nekkut sartay ni ñaari sart fil amri ci ndigal ya daaxi bàyyil tax mii naa sikki sàkka mu wax ne kat kiy digle ak di tere ginnaaw bu ñu saatee ci moom mu xam lu baax xam lu bon xam la muy digle ne aw lu baax lay indi xam la muy tere ne aw ay lay dàq waaye nag na nekk koo xam te ni dafay am ndigalal imaam waaye na nekk koo xam te tamit dafay nekk ku maanu na nekk ku maanu koo xam te ni lépp lu muy digle rek fekk na mu def ko ba pare lu muy tere it bàyyi na ko bañ a nekk bañ a nekk ci ñi nga xam te dañuy digle ak di tere ba pare digle ak la ñuy tere nekkuñu ko kon loolu mooy maanu gi nanga am tamit ndigalal imaam fa nga nekk nanga nga imaam bat na am ndigalam ne yow mën ngaa digle mën ngaa tere waaye dafa am wax ne nag ñaar yi kat ci sart yi ndigalal imam man nga koo bañ a am te teewul nga mën a digle mën a tere man ngaa bañ a maanu ba pare téewul nga mën a digle mën a tere kon daal nit ki bu dee leer na ko ne bu teree ñu bàyyi bu diglee ñu def doonte moom la muy tere ak la muy digle defu ko sax na tere rek ak di digle ak tamit nit ki bu ko leeree ne bu diglee ñu def ko bu teree ñu bàyyi jërul kon mu cay xool ndigalal imaam waaw mën naa digle ak mën naa tere waaye jërut mu ciy xool ndigalal imaam kon daal sëriñ bi wax na ne jullit bi war naa bëgg ngir yàlla tey bañ ngir yàlla war ngaa bëgg jullit bi ngir gëmam yàlla war ngaa bañ yéefar bi ngir weddi gi mu weddi yàlla jullit bi war naa tàmbal boppam di digle lu baax ak di tere lu bon ci fu mu man di nekk ndax loolu bokk na ci li ëpp solo ndax sëriñ bi daana wax ne lu bari li ma doon wut mu jafe bëgg ngir yàlla ak bañ ngir yàlla ci laa ko am yàlla ak bañ ngir yàlla lu am daraja la ci suñu borom te nit ki tamit nay jiim li muy digle ak li muy tere nay fexe cee jiitu na cee fexe jiitu kon loolu daal bokk na ci ndénkaan yi nga xam te ni sëriñ bi daf ko doon dénk jullit yi nga xam te ni ay waxambaane lañ kon yooyu yu jar a bàyyi xel la kon xam naa ne tamit dañuy yemale fii kon suñuy kàddu di jox dig daje ñëpp beneen jotaay bii di ñëw ñu yeggale ci ndénkaane sëriñ bi ñu ndénkaane bi am solo kon daal dañuy ñaanal su nit ñëpp suñu boom defal ñu jàmm ak taw feex di ñaanal ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk bitim réew ak képp kuy teewlu jotaay bi ñu ngi lay ñaanal suñu woon defal la gudd fan ak wér ak tawféex kon dañuy wàcce kàddu yi di ñaanalante di wax ni in uridu illa al islaax ma stataxtu wa ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Amen. <laughs> sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey